solution bi lu yomb rek la. ñooñu ñu fi nekk am nañ tous les moyens pour xam ki jël ak ki jëlul ci 24 heures mën nañ koo xam li ma d'accordul mooy nañ arrêté sànq yëpp loolu d'accorduma ko parce que boo demee gàddaay am na xamante ni dañoo jënd muur yu valable. Hmm. ñii ma la wax nii. ay nañ arrêté chantier yi moom. nañ arrêté chantier yi lu lu yoon la parce que. parce que non du yoon maanaam li ñu war a lijjanti ak li ñu war a xool dafa bari. waaw xam nga fi war a xool. mooy a convaincre très rapidement. nit daajal jël ay alalam jënd demal géejawaay dama bëgg ngeen déplacé dem géejawaay xool. Mm-hmm. ngeen commencé li commencé euh, euh, Malibu ba Malika ngeen xool ba fi géejawaay yam nga xool la fa nit investir. am na loo xam ne nit ki deful heure président moo ne lii jël naa ko joxe naa ko nga moom sa alal jël sa bàyyi joxe ko nga am sa bàyyi yow tabax. ngay tabax jël ay ouvrier ñuy liggéey nga xëy arrêté loolu yëpp ñëpp dem chômage mais nit ñi woo leen convoqué leen ñu jot tabax indil say kër ñu vérifié mais doo jékki-jékki da taxaw leen lépp ñuy taxaw ñu doon seen alal dugal ko ñi doon liggéey tey liggéeyatuñ am na ay cité yi ñu doon tabax foofu ay am na ay ouvrier yu fa nekkoon yaakaar si di saytu xool li ngay ko parce que réew mi lépp dafa rujub mm. te ñun yàpp naa ne ñii ñun la ñuy defaral parce que gis naa koo xamante un hectare la yor gis naa ku ñu jox eh. nga ñëw tey ji pour wax lu jaaduwul mm-hmm. am na loo xamante ni tey di ngi tooñ sëñ ji tey sëñ Muntaxa mii dañ koo daggal si si foom la ñaari million amulaay rapidement génn ay kayitam waa impôt demel ñoo ko def jël baayam yóbbul ko ko këram jox ko ko te xamul yëgul pour lan jël ko ko jox ko ko pour li ñu mën a def mën a jàll yow nga gis keneen koo xamante ni am na fa teene cent cinquante nga lànk na doo ko jox kayitam yow dem jël kayitam yóbbul sëñ bi yow ba pare yow miy liggéey impôt demel nga jël sa bàyyi génn ko ñeneen ñi nga xamante ni am nañ fa ngeen lànk bañ leen a jox bi ñuy jubbanti loolu la ñu war a njëkk a jubbanti ñu gën a dëng si àdduna waa mooy waa impôt demel yii lan mooy problème lan lan mooy solution bi loo loo yaakaar ne mooy solution bi. mooy li ñu wax nii ñu woo ñëpp ba a teggi kenn bañ ko xumtoo. ku nekk ñu woo la. Mm-hmm. ñun ay kilifa yu ñu géejawaay. Mm-hmm. bokk nañ si ñu doon xëccoo mairie bi. Mm-hmm. géejawaay doo fu dugg te xamuñu ma man ak ñeneen ak ñeneen am na samay morom yu fa nekk ak ñeneen ak ñeneen. ñu woo leen man la ma d'accord bu ma am. mais population géejawaay dañoo war a dëkk. am na lu bëri amuñu ko diñ koy jéggaani te xaj na foofu géejawaay war na faa mën a ne man waxuma pour sama cas mais géejawaay bi ma dëkk yaroo fa 112 yàlla suturaal ma fa su ma seen xale yi ñëw suñ borom dimbale leen maa ngi wax ne am na ay nit yuy tëdd si ay terrasse te loolu nit mënu ko imaginer terrasse boobu moomul étage boobu moomul tàngaay bi ñëpp si ay fa la ñuy fanaan ñuy si mbedd yi ndax kër xar na te amuñu xaalis location cent cinquante mille francs mm-hmm. ngay fay te yow liggéeyoo amoo amoo salaire cent mille yow kay xanaa balaa ngaa jox koo xamante ni yow am na salaire am indemnité de logement nga war a ko dolliwaat terrain jël ko tabax ko comme li nga wax nii ñu jël ko tabax ko ay cité municipal kon ñu am Italie ngay fay cinquante mille francs wala quatre-vingt mille francs nit ñëpp yëg ci seen bopp loolu d'accord naa man. sa terrain bi nga am foofu ñaana nga ko jëndee woon. non man da dama dama tabax ay avenage foofu foofu noonu yi ñaata lay jox. terrain yi demi bi huit millions la ñu loo dañoo jël huit millions vingt cinq millions pourquoi demuñu jël faneen foo xamante ne peut moom wala ñoom dañoo bëgg dëkk Guèye waaye. mais ku nekk ak